Louis. kaay xëyee tey ma daal di leen koy yëral journaux yu bëri nag daal nañ dikk ak ñun nag si tontu gi nga xam ni kon nag waa service Cheikh Tidiane Dieye bu hydraulique ak assainissement daal nañ koy tontu nag ki nga xam ni mooy ex DG ONAS Cheikh Dieng te ki démb nag journal yu bëri daal nañ koy xëyee bés bi le jour daal na siy dikk de wax nag génn gi nga xam ne kon nag gaa ñi génn nañ ko réew mi quotidien kazalika lii quotidien ñoom ñëpp nag daal di siy wax journal dépêche daal nay dikk nag kon nag si coow li nga xam ne ba tey moo des si diggante ñooñu Cheikh Diagne bii ak ki nga xam ni mooy nag nitu Cheikh Tidiane Dieye direct news daal di siy def taxaw seetlu yi nga xam ni kon nag kenn ku si nekk si ay leader daal ñu koy yëkkati turbine yéen a si indi nag kàddu yi nga xam ni kon nag Bougane Gueye na ko daal di wëññeeku nag si journal Le Quotidien bi nga xam ni kon nag dafay dikkal ñun si marché yi nga xam ni moo ñeel wàllu marché ONAS yi likaay xamal ni kon nag ba tey nag moom ministre bi nag Cheikh Tidiane Dieye ba tey pat pataara la may de ndax dafa mujjee faaf nag yónnee ñi nga xam ni nag mooy service ministère bi nag ngir ñu daal di indi ab leeral jëmale ko nag si coow li nga xam ni moo dox si diggante moom ministre bi ak docteur Cheikh Dieng bi nga xam ne mooy ONAS yéegle kaay bi nag nañu xam ne mooy Cheikh Dieng Birahim Seck ay bi nga xam ne loo xam ne dina ko mën a jariñ de amul benn njariñ laa la wax Thierno Alassane Sall ma wax la benn affaire coow li coow li ak ki nga xam ni mooy Cheikh Tidiane Dieye ndax ku si nekk nag si ñoom ñaar wax na kon nag moo a leeral mooy justice la de indi ab leeral jëmale ko nag si coow li nga xam ni kon nag moo bëggee dégg dëgg ci ko affaire ONAS bii Cheikh Tidiane Dieye dafa mel ni nag ku ragal moo tax nag may laaj lan la Cheikh Tidiane kon nag di ragal si coow li nga xam ni moo dox nag si digganteeg moom ak docteur Cheikh Dieng ndax dafa faf nag yàlla yónnee ñi nga xam ne ñooy seen ministère bii ngir ñu daal koy tontol te lii ab ragal la réew mi quotidien na ko gis nga xam ne kon nag ku si nekk si ñoom nag bàyyiwul de ndax ndiki démb la waa ONAS daal mooy docteur Cheikh Dieng tax lañ koy toppee nag mooy faux et usage de faux bés bi le jour na ko nag hé boo bëggee dégg dëgg tontu bi nga xam ni kon nag technicien ya daan nañ koy tontu sori na nag ab réponse bi nga xam ni moom la ñu bëgg de Birahim Seck fàttali na nii la mu wax si techniciens yi nga xam ne kon nag ñoo jege ñaale Cheikh Tidiane Dieye te ndiki démb nag la génn daal di indi ay leeral ne gaa daal boo bëggee dégg dëgg la na ko Moussa Diakhaté di député à l'Assemblée nationale kon ab su ko defee nag ñu daal di indi ab leeral jëmale ko nag si ñaari jëmm yii ndax coow li dafa bari waay journal La Dépêche na ko hé dëgg la de scandale bi am sa duwaanu ONAS moom député Moussa Diakhaté kay fi mu ne nii la sàkku nag moo ñibbi ab enquête parlementaire su ko defee nag lépp mën a leer lii scandale bi nga xam ni kon nag moo am sa duwaanu sa bopp daal na koy yëkkati jëmale ko nag si li nga xam ni mooy coow de Bougane nag di samp ab laaj ne lan nag la Ousmane Sonko premier ministre ministre nag daal di protéger ki nga xam ne mooy docteur Cheikh Tidiane lii kat ab laaj la rek of nag ak procureur kon nag daal la ñeen di interpellé su ko defee nag ñu daal di la muy sàkk kon nag mooy ñu ubbi ab enquête bu gën a xóot nag jëmale ko ci mbir mii di indi ab lumière député Moussa Diakhaté nag la muy nag moo ñu ubbi ab commission d' enquête parlementaire Thierno Alassane Sall na ko hé gis nga ndiki jii naa déposé nag ab plainte contre X nag ngir ñu daal di ubbi ab enquête waay waay su ko defee nag lii mën a leer waay ndaxte coow li dafa bari nag turbine yéen nag daal di taxaw ñun nag si situation bi sa D-Média ak démenti bi nga xam ni kon waa groupe D-Média daal nañ koy weddi ministre Aliou Sall bi nga xam ni kon nag da ñëw si ay groupe ak média de presse yi nga xam ni kon nekkuñ en règle te ñu daal di siy boole ki nga xam ne mooy D-Média lii nag moo tax ñoom waa D-Média daal di génn weddi nag yi la tuuma yéegle kaay bi nag gis nga ñoom waa groupe D-Média nag la wax mooy rafetul nag lii dafa malhonnête de ñu daal di classé nag ki nga ci entreprise de presse yi nga xam ni nekkuñu en règle lii nag du dëgg te ñoom la ñuy xamle mooy nag depuis nag waa inspection du travail daal di ñëw ci D-Média amal ab visite ñoom sax seen bopp gis nañ ne amul benn rëq-rëq boo xam ni daal nañ koy notifié wala infraction ci groupe D-Média ba suñu joon yàllaay tey nag kon nag moom monsieur Sall na jàpp ne gis nga xoqatal bii ak ne gaa njëkkati nañu ci D-Média du jàll de bi yaboon a leer les échos yéene kaay nag dañu indil kàddu yi nga xam ni kon nag Ousmane son parti Pastef ci ki dému nag daal nay génn ngir wax ak sénégalais yéegle kaay bi nañu boo bëggee dégg dëgg Ousmane Sonko la mu xam xamle te ki démb nag ak gaayam yi leer na de nee na état de grâce taxumaa jóg waay waay état de grâce amul sens état de grâce dafa nekk loo xam ni c'est pour les faibles de te ñun nag koo ngir ubbi ak débat ak ñëpp nag képp koo xam ne ab débat di de ko teg yoon moo tax a jug boo mu si woowee naa la si fekk si de waaye ay kàddu yu ñaaw ay saaga ñu daal di lay yebal ah, na ko kay boo bëggee dégg-dëgg moom njiitalu Pastef bii Ousmane Sonko kon nag daal nay dooraat li nga xam ni mooy xeexum politique ak menace yi rek Sonko ne hé loolee yéen xam ne da ngeen a defee ne woon nag kon nekkee premier ministre dootuma am jotu politique wàcc sur le terrain yéen nax seen bopp de dafa am nag li nga xam ne si réew mu soxla kay dëgg-dëgg jamono ji mooy ab débat di de ki nga xam ne jàpp na ne am na xalaatam jëmale ko fii si réew mi xalaatam dëppoowul ak li nga xam ne mooy suñu xalaat xalaat kon nag mën na ñëw ñu toog waxtaanee ko lii mooy Sénégal léegi nag may wax ñi nga xam ni ñooy waa Pastef te projet bi daa leen di ñor mooy nañu xam ni xeex bi a tàmbali gën a aar bi nag ndax ay at yu bëri nag fi mu ne nii dañu fas bi nga xam ne am nañ ko si réew mi ñu mën ko mottali lii nag mooy dëgg dëgg bi kay mooy l'observateur daal na koy indi si wàllum ndox fii si Touba ak détails yi nga xam ni kon nag moom président de la République Diomaye si solution am jàpp na ne lii mooy indi li nga xam ne mooy saafara ndox fii si dëkk bu sell bi di Touba yéeg lekkaay bi nañu gis nag projet bi nag kon dinañ ko daal réaliser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

sénégal7.com Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.